asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi siyaare ñëpp Abdou Khadir Kébé laa tudd euh, di donga di euh, doomi soxna wàllu mu sëñ Saliou ñëwoon fi nag ci sama xarit bi sama sëriñ bi di sëñ sërif mu sëñ euh, Fallou

gis nañ ne buñ duggee rek di siyaare barab bi gis nañ fi baga bagage yu bëree bëri yoo xam ne bagage Serigne Touba la soo demee da nga gis bind yëre yi mu daan sol di bind daa di ci tuuru dañ ci jànge ne sëriñ bi yitteel wàllu mbind ak maanaam yitteel la a gis ci ne euh, nit ku ñuul dañoo maase di ko dàkkantele naan yor nañ civilisation boo xam ne bind waaye nga gis ci kiimaam muy ku mel ne muy koo xam ne dafa ñëw di kenn nit ci nit ñu ñuul ñi ay toni ton ci mbind kon loolu dafay wane rek ne Sëñ Tuubaa xar baax ndax dafa fekk fu kenn daawul bind mu bind fa lu toll noonu ni yonante bi doon al ummi yi al ummi yi nag bu ñu ko waxee mooy ku jàngut maanaam xeb euh, jëm mi ni yonante bi yore ni mu rëyee nga xam ne civilisation ak bi bépp ci la tegu yàlla jaarale ko ci ku jàngut kon li muy tekki loolu ci yàlla la jóge naka noonu it bi mission bi mu yore mission boo xamante ni ci bind loolu daf ñuy soññ ñun africains yi ñu gën a sonn ci wàllu jàng te loolu civilisation boobu tey bu ñu réeroon tey boo ñëwee ci musée bi da ko gis ak yeneen bagage yoo xam ne da ko fi gis kon musée bu ñu ko waxee boo doon jàng histoire sax da ko gëstu euh, li ñuy wax euh, maanaam renaissance bu ñu ko dee gëstu bokk na ci mandarga yi ko mandargaal maanaam bi ñu commencé def ay gëstu ci mbind yi fi amoon mbind yooyu nag biñ ci passé woo ci lañ daal di dekkalaate nag civilisation bi nga xam ne tey moom lañ nekk tey jii maanaam nga xam ne ko mbind ni musée ni mu amee solo di denc bagage yi kon loolu war nañ cee gisee ne yoon wi tam ngir ñu mën a xam bu baax authenticité yoon bi ak ak ak fi mu tegu il faut ñu delluwaat ci source yi source yi nag ci musée bi rek lañ koy mën a fekk moo waral sëñ sëñ Serif euh, di koo xam ne kenn ëpp ko légitimité ci yoon bi ndax doomi seen Fall wëlbati ko ñun ñu xam ko ci ak jub xam ko ci bëgg lu baax xam ko ci xeeñtu lu baax lu jugee maanaam yàlla jox ko yim kiiwal ko xalaat bu rafet bu toll ci ne taxawalaat maanaam barab boo xam ne kërub barkeelu la kërub barkeelu nag suñ ko waxee ñun ñoo koy tudd ñun yoon murid ak taalibe yi ci baat yu rafet yi waaye mooy musée rek moo xam ne dangay denc jeexit yi nga xam ne sëñ bi bàyyi na ko fi ci jeexit yooyu nag des na ci barkeelu euh, des na ci maanaam ndax mbubbum sëñ Tuubaa moo xam ne aw ñaqam ay jëfam lépp ci jaamu yàlla la ko jeexal kooku képp ku gis mbiram wala nga laal ko wala nga jege ko maanaam danga nga da lay ne maanaam barke ba barkeem ci jëmbam sañ ngaa am jortu ak yaakaar ci ne barke ba ñëw na ci yow kon léegi loolu rek importance boobu dafa am solo bi ci topp itam euh, ñu mën cee xamee itam euh, li sëñ bi doon dund mën cee xamee yoon wi lépp luñ ci bëgg ak ak doxin lépp luñ ci dugg rek maanaam buñ duggee ci musée boobu barab la buñ ko mën a gëstu daari kamil jii tey nga xam ne sëñ Blaat ko fi defal lu mel noonu la daari kamil nag li ko wutaleeg lii tuuti daari kamil boo demee ci biir daari kamil am na ca barab boo xam ne lu mel nii la dajale bagage yi waaye daari kamil moom ab ab ab saaru bibliothèque la rek boo xam ne dafay dajale euh, mbindi sëñ beeg yu mel waaye mbindi yu jeexit yu yàggee nag nga xam ne boo ko xoolee rek automatiquement da ngay daal di xam sëñ bi ni mu doon dundee xam. Euh, maanaam nga xam ne tey boo bëggee ñu taxawalaat daanaka bu ñu doon dessiné waat bu ñu bëggoon bu ñu bëggoon rëdd ni sëñ bi nekkee woon daanaka boo ca passé woo da koy mënaat def. fi ne boo demoon Égypte tey fekk fa pyramide yi fekk fa yu mel noonu daanaka dangay man maanaam li ñu lu ñu li ñu réeroon ci jamono yàgg yëpp da nga koy mën a amee foofu kon tamit lu mel nii noonu lay jëriñ noonu lay ci wanaan ñu yoon wi dégg nga euh, euh, euh, maanaam bu ñu bëggee amaat orientation yu bees yëpp bu ñu sukkandikoo ci loolu dañ koy daal di faram kon musée bi lu am solo la lu murit yëpp war a jàpp la ngir ngir ngir ngir loolu ma loolu ma fi tudd léegi waaye ngir ne kii nga xam ne xam nañ ko ci mu koy taxawal tamit muy sëñ Serif ñu xam ko ci ak jub xam ko ci ak dëggu xam ko ci ak pëseef maanaam lépp lu mu woo murit yi moom mooy lu sëñ ñu taxawoo la te itam moom mii bi mu koy def itam daf koo teg ci ndigalu sëñ ñu taxaw kon na ci ñëpp jàpp waaw ñun ñëpp ñu ngi ci biir waaye nu gën a pëseef waat ndax ndax ndax projet la boo xam ne day amal njëriñ yoon wi lool. ëllëg képp kuy ñëw ci yoon bi ak lépp luñ gisi ëllëg luñ gépp ba gëstu ko ba gis ko muy loo xam ne dafay dafay dafay dafay laal yoon wi mën nañ koy jël yóbbu fa yóbbu ko foofu denc ko fa euh, képp kuy ti man faa dem képp kuy barkeelu man faa dem même yoon wi itam ñi fi am seen i bagage ci loo xam ne dafay aju ci euh, maanaam lépp lu sëñ bi ma a laal wala mag ñi masoon ko yore wala yu mel noonu mën nañoo jëm jëli lu mel noonu barab bii day doon am barab ñu man ko faa denc loolu daal kàddu yu gàtt yooyu bëggoon naa ko ci dugal ngeen barkeeloo ko ci di soññaat ñëpp di soññaat sama bopp